Lesson 4 Numbers Benn One Ñaar Two Ñett Three Ñeent Four Juróom Five Juróom benn Six Juróom ñaar Seven Juróom ñett eight juróom ñeent nine fukk ten fukk ak benn eleven fukk ak ñaar twelve fukk ak ñett thirteen fukk ak ñeent fourteen fukk ak juróom fifteen fukk ak juróom benn sixteen fukk ak juróom-ñaar. seventeen. fukk ak juróom eighteen. fukk ak juróom nineteen. ñaar fukk. twenty.